bàyyi leen caaxaan bi day jafe structuration bi la nuñ ko structuré dafa nekk réew moo xam ne caaxaan kese kese la xam xamul leneen caaxaan kese lépp caaxaan la fanatisme euh, émotionnel lépp caaxaan réew mi lañ ko lañ configuré ci caaxaan réew mi caaxaan la gën a xam caaxaan la gën a aimé caaxaan lay gën a déglu boo leen ne rapport intéressé wu leen wax na yàgg naa leen ko wax il faut nga ne leen rapport sexuel mu intéressé leen ñoom ñëpp jóg faraax seen nopp yi ne envoyé ma ko inbox ma ko rapport dañ lay laaj ban la rapport yi génn ñu ne la ban la nga leen rapport financier ñu ne gat saramara rapport rapport fisco gas saramara rapport sexuel ñu indi yónnee ma ko dégg naa toj na tolo rajo mu rajo kan moo ko lal kan moo ko ñam yónnee ma ko inbox ma ko foofu la Sénégal tollu rapport ñoom sexuel bi moo leen ci intéressé ñoom bu amul bu amul radical sexuel bi intéressé wu leen bu financier bi da leen di romb bëgguñu ko liir paresse intellectuelle lañu yor bu fekkee rapport foncier bi la intéressé wu leen kenn du leen partagé ma bu dee rapport fiscaux yi la ñu yore euh, euh, euh, problème fiscalité intéressé leen bu sexuelle mais sa da de c'est de centaines de milliers de vues c'est des millions de vues en une minute bum bum bum partage partage diw ñam na diw <laughs> réew moomu noonu bu yeewoo tey ku nekk di jom naan ah quatre cent milliards lañ sàcc eh, gars yi dañuy filmer rek ñoo gën a li ñuy li ñuy jëm di mel ni ko jommi wuñu boo bëggee ñu concentré wu consommé ko ba pare mu des ci seen màcc mu des ci seen conscience historique da nga koy def lomotif danga koy def lomotif seen conscience historique lay def tant que nawul lomotif intéressé wu leen foofu la Sénégal tollu ñoom rapport sexuel lañ ci xam délinquant sexuel lañ ci xam délinquant foncier ñu ne ah gas saram ma rek nañ dox ci kase yi ah! ñoom sax ci ñoom sax tasaate la ko ci kaso ñu ne délinquant foncier yi ah suufu jàmbur la jël noq lañ ko ci kaso yi noq fi ne waaw ma délinquant fiscal am na noq ci kaso ah fayul tëb eh, na def fay impôt waay ci kaso yi ñu ne leen délinquant yi ah kan la léegi fu fu ko ñam fu ko laal foofu loolu ñëpp xam nañ li loolu mooy réalité bi réew mi foofu la tollu gars yi délinquant sexuel bi moo leen gën a amal importance que délinquant foncier bi délinquant fiscal bi wala délinquant euh, financier bi boobu leen toll léegi nag booy réew maa ngi noonu ñii ñoo sàcc seen xaalis dinañ def lu ñu mën pour jàpp leen dugal leen ci kaso yi fii ak semaine prochaine dinañ commencé dem di wuy par dix par dix dix dix dix dix reddition des comptes yi déclenché nañ ko léegi nag ñi ngi ñëw de am na ñoo xam ni balaa balaa ñoo ñëw élection yi dina ñëw danañ xam ba xam yéen li metti na leen di dégg ngeen wax nañ Amadou Ba wax nañ Moustapha Ba ñi ñëpp parce que ñoo yoroon finance bi wax nañ gaa yi ñu yoroon budget et cetera cetera waaye léegi ñooñ dañoo bëgg ñëw seen du Amadou Ba dina ñëw seen dëkk danañ xam ba xam metti na leen wala metti wu leen fan foofu laay xamee ba xam yéen li ngeen di wax dëgg la ci yéen Amadou Ba daan na ñëw seen dëkk yi xam na ngeen ko na ngeen koy teeroo <laughs> billaay bés boo gisee Amadou Ba dugg xeer yi di tëmb deew kaña bum bum bum oto yi ñuy kaayaase oto mi bëgg bëgg bëgg dóor waaye dama ne yéey sénégalais sont conscients <laughs> c'est fini pour Amadou Ba Amadou Ba ñëw na Kaolack gars gars yi kaayaase oto bi taal oto bi booy di fippu di taal nan ki dafa sàcc sañu milliard bi di taal oto yi di daxe gars yi di dóor teew kañe di toj di <laughs> là je dirais félicitation oh, oh mon pays s'est révolté pap pap pap pap pap pays bi nag léegi conscience citoyenne bi wala euh, conscience historique bi kawe na bu amee keneen koo xam ni mu mooy euh, Euh, directeur kudd ba euh, euh, Cheikh Cheikh ñebbe boo leen gis nga xam ni jàpp nañ ko ci ay milliards mu ñëw ci dëkk naan may la ñuy député waa dëkk ba màbb génn fekk ko foofu di ko tëmbali xeer di dàqe ba muy daw ñu ne ko criminel criminel criminel financier di ko dóori brique di ko sànni di toj oto yeeg yooyu yee je dirais pick up yee peuple bi yeewu na kon ñii xam nañ ñiy sàcc parce que yéen man xam lu ma jaaxal ci yéen <laughs> boo takkoon xar njaga caam mii bu takkoon xar dem rayante am deux cent mille am ñu ne suba la tabaski mu takk xaram ab sàcc di yor dagg buum bi bugg a génn mu gis ko dana waay sàccaay sàccaay sàccaay sàccaay ah, mbëkk mi ah. ñu jàpp sàcc bi gaa ne luñ koy def na taal leen ko taal leen ko ray leen ko daggate ne sàcc bi boo defa naa dañ koy sotti essence taal deux cent mille xar kese deux cent mille moom dana <laughs> yuuxu bi rek day yuuxu ba ba butit yu tàj Sadio Sadio ah corde vocale la tëf koñ bi di màbb gëg gëg lu mu sàcc xar bu ñaata deux cent mille bu kan benn kese bu ko buggoon tabaskee ak ak jabaram ñaari doom ñu ñu ne nañ ko taal ñu sotti ko pën taal. ñu ne benn sàcc sàcc nag milliards huit cent milliards ñëw ci koñ fekk Ndiaga Thiam bu toog ak njabootam salaamaaleykum waaw ñu ne kii kan la Amadou Ba man la Amadou Ba jàppale leen ma ngeen fatal ma ñoom ñu bàyyi ko noonu <laughs> ñu ko wër ah Amadou la <laughs> nga xam ni kon réew moomu am na problème sàcc bu sàcc deux cent mille benn xar bu deux cent mille ngeen pare pour rey ko sàcc bu sàcc seen milliards ñëw ci koñ di wax ak yéen di di jaabante nu mu ko neexee vous avez problème problèmes de priorité boo munee rey sàcc bu sàcc sa xar xawma lan nga fi bàyyeeku sàcc sa milliard te yow xar yow kese yaa ko moom kii milliard askanu lëmb la sàcc mun a ñëw foofu di wax di dox di ànd ak gàngooram te dara fekk ko ci loolu y a problème kon nag fii la ñuy xamee ba xam li ngeen di wax nii lamentation yi dëgg la ci yéen dans quelque dans un mois day am ay élection dina dinañ ubbi campagne dinañ xool ba xam ñi ñu wax ne ñii ñii Sonko ñëw génn ak kanam renfrogné mer wax wax ni ñii sàcc nañ ay milliards ah dinañ ñëw seen koñi yi dinañ xool lan ngeen leen di def ba xam jooy hypocrite ngeen yor nii wala da ngeen di sóob nii gëmu leen dara wala da ngeen di xam sax tey moom dégg na lu ne mille huit cent quatre-vingt-douze milliards yu ñu leb seddoo cinq cinq cent milliards secret défense six cent cinq milliards yu ñu ne mes mu réer ñoo ñooñu nag ñoo nar a ñëw di doxantu ne dañuy ñëw pour ngeen voter leen pour ñu am ay député on verra bu ñu ñëwee ci yéen foofu la ñuy xam nag ba xam li ngeen di wax nii da ngeen koo gëm wala da ngeen di sóob wala da ngeen di hypocrisie la da ngeen di jooyantu nii gëmu leen dara loolu yëpp dinañ ko xam yàggutul dara. wala l'association des prostituées de la république bientôt dinañ ñëw te ñoom ñoo sàcc lu ñu bëgg a sàcc rek na secret défense jël ay milliards plus de deux mille cinq cent milliards deux mille cinq cent milliards ñu estampillé secret défense bu kenn ubbi bu kenn xool bu kenn laaw léegi nag euh, dina dina leer dina leer ak leneen ak leneen des lii lii vrac la eh lii vrac la lii Sonko wax nii ne leen vrac après dinañ ñëw di leen détaillé lii vrac kese la